sëriñ xaarim awo ba bi mu fiy jógee taxu ko di mag loolu toir fakala macha allah amoon barke silwiise siiw jaxasoog nit yi diine yépp xew-xewu diine ci la wàcc liggéey ci Thiès gi yaroon rajo ba di waxtaan te ci ayam alxuraan la mujjee wax waaye tey yaa boole bopp sax bopp ci histoire ba ku di ko google bind Serigne Bassirou mu génn Serigne Bassirou Xaadim Awa Ba ba Serigne Xaadim dem bàyyi ko fi beneen bi l'islam bi ke jamu la bis bii di bisub Seydina Mohamed nga jël ñaari camion bii nag bii xar ñi ko doon séddale départ minuit ba 13h ca suba ga doog a ñibbisiwaat ndakaaru ci yow sa jukkoy bopp a tax. wëlbatiku teg ci sa tànk bopp def délégation kër gu nekk ci këri diine yi senegal nga àgg fa nuyoo saafanteeg moom yëkkati fa ay baat santante dëgëral lislaam bee tax. wax nañ la ko keroog ci Tiwaawoon jataay ba am na ko fa yëkkati kàddu du Seydou Sine ñu ne suñu jataay tey bi mooy bennoo sigil lislaam yaa sigil lislaam sagal sa maam Serigne Baara li may wax ci njabootu alaaj ndaama nii donn sa baay ab cër la waaye donn sa xarite baay jukka la dafa bëggoon bi ñu ziyaaree mbokk yépp te ndokkal leen ci guddi gi ak bis bi te nuyu leen kenn ku ne ci turam ak santam daa bëggoon a jël seen daa bëggoon a jël ab nuyoom ak ay kàddoom yi jóge ci mbokk yépp jógee ci kilifa yi fi teew yépp di kilifa yi diine yi ak ñi fi teewal administration liñ ci waroon a wax yépp ci turu njabootuk sëriñ Masamba ak waa Touba gi nu jóge ñu teg lépp ci loxol sëriñ bas mu boole koog ay kàddoom jottali ko ci turu waa Touba gépp ci turu sëriñ Mountakha ak waa tuubaa gépp ak Serigne Mamour Massamba loolu rek la ci jublu a wax mi ngi baluwaat ak ñëpp jërëjëf Mbàkke waaye sëriñ Bass wax na la ko léegi yaa waroon a tëj jataay bi di borom kër gi boo jëlee say kàddu ak kàddug njaboot gi loolu mooy kàddug Mouhamadou Dan Fall di kàddug Ablaye Ndiaye ak Modou Mbacke Fall kon kàddu yooyu yëpp ak cant yeeg ngërëm yi boole nan ko di ko dajale di ko teg ci loxol gayndeeg Serigne Baara di Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Xaadim Ba ya rabbana innal wara tadrahu li يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك معا ليسمعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجل لنا لطفا وأمنا يا أهد yaa man taala lam yakun baray Mamadou Lamine sëñ baara la waye am ndam foofu nga taxaw noonu la waye aw leen baray Modou Lamine sëñ am ndam ilaahi baaraay Modou Lamine Modou Lamine Mbacké jaraway aw leen baaraay Modou Lamine yow yaa di gayndeg baara baari loxo yee baaray Modou Lamine mami bas Mbakke jaraway baari bilaay baara amina tolo Mustafa ko ci gis muy Bamba mag leen Sëriñ baara baara amina tolo Mustafa ko ci gis muy Bamba baari bismillahi irrahmani irrahim <clears throat> wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa nabiyina muhammadin afdali xalqillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaani ila yawmi ddin sëriñ xaadim jërëjëf cër ku ko amul doo ko joxe man maa bëggoon nga tëj jataay bi ndax Seyduna Muhammad nekk kilifa yi yonent yi moo tax sunu borom taamu ko mu nekk xaatimul anbiya kon boo nekkee sunu kilifa nekk ci jataay bi ñu taamu nga tëj ko kàddu yi rafet na xaadim wax na ko léegi imam dafa am sart yu ñu koy tànnee nit boo juddoo di doomi kilifa ñu di la warmaal di la sukkal di la raamal waaye nag loolu fii la yem taxaw ci minbar yor sa kaan loolu moom day am ay sart yu wër yu tax nit ki doog ko mën fa tabaarakallaahu sa waajur tànn la indi la fii teg la ci loxol alaaji ndaama njabootu alaaji ndaama gi di ay gor yu baax yoo xam ni jiitaluñu kenn teg la ci gannaaw jiitaluñu kenn teg la ci gannaaw seen lépp yi seen lépp yow la ndax ñoom dañu sempi njëmbatal seen baay dañ koy suuxat kon jërëjëf Mbàkke di nuyu sërif Alaaji Jaaj wax na dëgg mu xuraysan jiital leen te bu leen leen desal gannaaw kon sërif ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di bëgg ci jataay bii nga bëgg nga nga teew guddi gii bu dul woon ak sa maama yàlla du bind dara sayyiduna Adama ak sayyidatuna Hawa ba ñu tooñee yàlla bi leen yàlla bindee da leen a dugal àjjana tegal leen condition ni leen wala taqraba hadihi sajara yéen ñaar garab gii bu leen ko laal bu ngeen ko laalee fa takuuna min az-zalimin da dangeen bokk ci way tooñ yi iblis nag comme bari na kàttan te man manam bari na mu jax-jaxee leen bañ laal ko yàlla génne leen sanctionné leen génne leen keroog bi nga xamee ni yonent yàlla aadama mu ngi jéggulu sunu boroom ni ko yaa rabbi ixfir lii bi xaqi sayduna muhammad fu ne mu jégglu fa yàlla sunu borom maye silence rek waaye bi mu ne ko ixfir lii bi xaqi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom ni ko lu tax nga may jéggulu ci barkeb kii ngay tudd te bindaguma ko mu ne ko bi nga ma bindee tëral ma ma doon ban at yu bari nga def ci man ruu bi ma yëkkatee sama bopp rek dama gis ala xawaimil arsh kanu yitee aras ñu bind ci laa ilaha illa muhammadu rasulullahi ma xam ni ku ñaan ci barkeem nga may ko sunu borom jëkkal ko kon boo ñëwee fii bokk ñun guddi gi ñun ñu ngi la la di ziar suñ mbokk yi waa ndànk kunte yii kóllëre moo tax dañuy gàmm waaye bu bis bi jotee ñu bàyyi seen yi te ñëw mottali kóllëre kóllëre nag yàlla moo na ko digal inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibala fa abayna an yaxminnaha wa asfaqna minha wa xamalaha al insaan innahu kaana zaluman jahula yàlla dellu wax ni waaw awfu bil ahdi inna al ahda kaana masuula na ngeen fonk wëllëre ndax boo ëllëgee dinaa ko laaj ngeen di ñu baax at mu jot ñu ak yéen ñoo fi daje kon ci turu Serigne Mouhamadan ak ci turu Moodu ñu ngi leen di ziyaara di leen sant di leen gërëm ci turu Abdoulahi Ndiaye boo tuddee Mouhamadan tudd Modou tudd Abdoulaye yóbbaale nañ ñëpp géew ndax ñoom seen diggante du fardu ay nin mooy da tudd kii tudd kii par force ñoom du kifaaya la bu ñuy demee yóbbaale ñuy géew Modou ak Dan ak bu ñu taxawee ñi ñëpp mën nañ leen yóbbaale te ñoom it ñu nangu loolu njaboot kuy dund li nga war a ñaan yàlla mooy ñaan yàlla yàlla tàppe sa xoli njaboot boole leen ndax fitna ji gën a metti ci ña nekk yoomal xiyaam mooy fitnay njaboot guy kër këri ndax àdduna njaboot goo xam ni àddunaa leen boole ba nu taqalikoo alal boole leen ligsi boole leen ba nu taqalikoo alaaji ndaama moom ñan na yàlla ba yàlla nangul na ko ni ko sa njaboot duñ taqalikoo ngir loolu loolu jëf la man kaane lillaahi kaane laahu lahu ku nekkal yàlla yàlla nekkal la booy dund nekk ci li yàlla bëgg di ñaan yàlla di boole sa njaboot faw yàlla boole leen moo waral moodu amul kàddu amul baat ci kanamu dam surga la jàppe boppam te jamono bii ba ci ñun sunu kër yi am nañ jafe-jafe yooyu dëgg yàlla moo ko moom alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur dëgg yàlla ko moom kenn moomu ko man moomu ma ko koy wax rek ma ko danañ dem ba nga xam ni bu fi seen waajur jógee ñu kër ndax alali àdduna alaaji naa bi ñu koy miraas kenn ko alaaj jaaja wax na ko kenn yëgu ko la muy tegtale te yàlla dénkoon benn soxna la muy tegtale mooy ñoom bopp lañ dafa am koo xam ni xaakam la tuddoon xaakim bi mu demee bay bëgg a wàcc liggéey mu yónni ak njabootam ni dem leen taxane li ma njaboot gi dem taxane ku ci na indi samat mu boole ko mu doonu say mu jox leen ni leen damm leen def tour de table njaboot gi ku damm doo mën a damm ba ñëpp jeex mu tekki matt mi teg ni ku ci ne jëlaatal mu tekki say wi teg ni ku ci ne jëlaatal sa mat ku ci ne jël mu la dammal nga damm mu ne bu ngeen àndee nekk benn kenn du man ki yéen dara waaye bu ngeen tàqali néew doole kon Mouhamadan jërëjëf ci seen tur sa tur tur Moodu tur Abdullahi lii damay bañ ñi seetaan lii defe ni lu yees la kaddu gi du lu yees Baye Cheikh Dieng mii toog ay at yu bari ñu ngi ko fi fekk Alaaji Jaaja mais 96 ba nëgë ni fu ma fi teewee bu préfet waxee ba pare bàyyi naa ma man la naan tontu ko bi mu fi jógee njaboot gi dëggal loolu dañuy gàmm ci Kébémer di gàmm ci département Kébémer léegi ma ngeewul laa jóge ñëw fii te dañuy gàmm ci sunu kër mais fii sañuma ko wuute ndax ndénkaan la kon Mouhamadan mi ngi nuyu ñëpp sëñ Xaadim sëñ Mouhamadan mi ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu sëñ Abdou Razak di nuyu sëñ Abdou Latif di nuyu sëriñ Jiili Maxtaar fa tabaarakallaahu kàddu yi rafet na sëñ ma Mamoon Mourtala day faral di wax ni dañ naan nit bu baaxee mbokk yaa ko mu ni booba day fekk mu doon mbokk mu baax ndax mbokk mu baax mooy wax ci mbokkam lu baax waaye mbokk muy ruube di wax ci yow dara lu baax boo toogee ci jotaay di wax sax dañ lay jéem a déstabiliser di déyante pour bëgg laa perturber loolu moo am ci jamono mais mbokk mu baax fa jër jërëjëf sëñ ji bi sëñ Abdou Lahad Say fii sa kër la ndax sa waajur sëñ Cheikh Amadou Mbacké lu baax rek la bëgg di taalibe sëriñ Touba di jëwriñ sëriñ Souhaïbou bu tàqantal leen ci loolu kon boo fi tawee sa diggante ak Basiiru rafet na loolu Basiiru yow dama lay wax di la bu dee ci côté sëñ Modou Maxtaar sama rakk nga waaye bu dee ci côté Alaaji Ndaama sama jarbaan nga ndax ñi samay mag lañ nga nekk xale boo xam ni gisuñu la ngay dugg ci yi di xew ndax jamono ji léegi dérapage bi dafa yomb waaye boo royee sa nijaay yii doo dérapé mukk ndax ñoom ndakaaru yu njëkk ja ba ba ndakaaru yu léegi ji kenn mësu leen dégg ci lenn luy niroog lu doy di wala lu manqué kon boo jógee teg foofu sa tànk dama lay sant dama lay gërëm dëgg la boo ñëwee fab mbubu moom muy mbubu maam sëñ si aw balla mbubu sëñ Modou Maxtaar takk sa ndigg danga bëgg sa pencu maam yi baax te noonu la bu ñu nax sunu bopp sëriñ Touba mooy lépp waaye yonente bi bu Busayri da ko wax ci Hamziya ni ko lam tazal fii dama iril kaw ni tuxtaaru lakkal ummahat wal aba lu jamono ji naqari naqari lu jaxasoo yàlla da daan tànnal ndeyu baax ak baayu baax kon boo bokkee fii wëlbatiku jiite association bii ci kër gi yow ak say mag ak say rakk yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla gën laa dooleel di nuyu préfet préfet wax nga dëgg li nga wax ci dëkk bi dëgg la bi may ñëw laa dayanteeg sëñ maam Cheikh mu woo ma wax man courant bi dafa coupé ma woo Lembu Diallo mooy délégué régional bi moo yilif jur ak Thiès mu ne ma effectivement maa ngi ci ni ma problème mu transport la ma ne ko Lembu ne ma ma ne ko dëkk boobu jafe-jafe bii daanaka mën naa ne ñaar fukki at moom la ñu bu làmp yëpp tàkkee ñu am jafe-jafe waxantuma la climatiseur mu ne ma ñi ngi ñëw bu màggal gi jàllee nga jox ma numéro dan ak Modou ma coordonné ak ñoom feek 20 jours danaa détecté danaa détecté problème bi incha allah ñu saafara ko kon loolu nga wax dëgg la ndax yaa ngi ci woon kon ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax nii la yéen yéen a représenté chef de l'état ci département yi ak communes yi ak régional yi kon boo déplacé woo ñëw ànd ak ministre conseil Isma Diouf di sama wëllëre di sama xarit di nit ku yàlla baaxal maa ngi koy nuyu ak Demba juuf nga xam ni moom goro la di taalibe di soppe di xarit Samba Fall gis nañ sa taxawaay bu mu la tuddee nga yóbbaale ak yow waa kër danak Modou yëpp ndax benn ngeen sëriñ bi loo jërëjëf yow ñoo bokk lépp boo ñëwee teew dañuy rafetlu sa jataay ndax sëriñ Massamba mooy sëriñ Touba kenn mën leen xaajale ndax Seex Massamba sëriñ Touba ko defal lépp kon sëriñ tubaay léppam kër gii këru sëriñ tubaa la ndax këru sëñ ma sàmba mooy sëriñ tubaa kon jërëjëf loo di nuyu Pa Jaaja Mbay comme ni ma ko waxee dëgg la moom sunu waajur la suñu xarita sunu soppe la di nit ku baax mën naa ni ca sëriñ Moodu Baara premier xalifab sëriñ Baara ba ci sëriñ Xaadim Awa bu mas a génn kër sëñ Baara kon Mbaye jërëjëf yow ko am kóllëre nga góor gi Cheikh Dieng ñu ngi lay sant yéen de bu ngeen dajanteeg alaaji ndaama du ngeen du du ngeen du ngeen am nga ci bi mu leen bàyyee gannaaw nan ngeen taxaw woon ak njabootam kon jërëjëf guddi gi nag guddi Seyduna Mohamed la Seyduna Mohamed mooy ki nga xam ni bu yowmal xiyaamee ba wàcce ba yàlla taxawaay bu yàgg boobu yàlla di wàcce jant bi ba yuur doomu aadama yi bax ku ne dem jub mu dégage ay responsabilité wallahi Modou moo du Modou yow Modou yow am daa feer nga wala sëriñ nga wala loo doon Modou Modou yow beneen yoon nag wax dëgg yàlla Bachir beneen yoon engagé leen Modou mu waxtaan guddi waaye lii rek li muy tegtale li muy tegtale mooy alaaji ma dafa bëggoon xam-xam te xam-xam mooy lépp ku yàlla def ku yàlla def ci sa njaboot xam-xam def ci xikma yàlla jox na lépp te waman yuutal xikma xad utiya xayran kasiran moo tax moom alaaji ma kenn du ko fàtte bis boobu nga xam ni sunu borom day wàcce jant bi ba yuru doomu aadama yi bax yonente boo daw wuti mu dégaa ses responsabilités am shafaatul kubra gu ma googu ñu wax bis booba la ndax booba ñëpp kenn am na ñoo xam dañuy dem ba ñu yàlla sax te ñoo far tàbbal sawara ndax taxawaay bi yàgg na kenn rek mooy ñëw ni dara suñu boroom tagg ko ci tur yoo xam ni bis boobu la ko jaam ñi doo ko dégg yàlla doog a ñëw jublu ci suñu mbir pour àtte ñu kooku nag moom la Serigne Touba ni dara fam léppam jox ko bëggul dara soxlawul dara muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Alaaji Ndaama wootewul bisub sëñ Masamba wootewul sant sëñ Masamba te mënoon na ko woote ndax sëñ ma sàmba defal na ko lu ko jar waaye dafa xam ni sëriñ Touba mooy rasulullahi te sëñ ma Masamba mooy Serigne Touba mu far dugg ci biir sëñ ma Masamba pour mën a taxawal bis bii kon bu jëlee guddi gii fab ko mu doon bisam. njabootam di ko taxawale nii ñu koy taxawale kon moom li bëggoon yéene ko yàlla mi ngi ko koy defal yonent bi nag dañoo war a roy moom ay jikkoom jàngal ko jàngat ko ndax bi ko yàlla di tagg wa innaka la ala yi azimin la ko tagge yow yaa gën a ragal yow yaa gën a kawe ñépp jikko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na aksaru maa yudxilul janna taqwallahi wa xusnul xuluq nee na ñuy dugg àjjana ñi ci ëpp sedda la yàlla nañu yàlla defal àjjana yàlla nañ ko yàlla defal ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi ëpp ci ñuy dugg àjjana mooy ñan mu ni taqwallahi ñi ragale yàlla ak boroom jikko yu rafet yi te balance balance su ëllëg yomal xiyaam balance su ëllëg yomal xiyaam balance bi ñuy peesee jëf yi jikko ju rafet moo koy diisal jigéen ñi nga xam ne dañ leen di jël ay soxna ku ci am lu mat téeméeri ku ci am lu mat juróomi jëkkër ba juróom benni jëkkër wala ñetti jëkkër wala ñaari jëkkër dañuy wax ni boroom xam yéen nañ cee wute ñii dañ ni ki la njëkk a takk boo faatoo bu ngeen faatoo duggandoo àjjana moo lay jël ñii ni ki la mujjee takk waaye li wér te wóor muy hadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee ki ci gën a rafet jikko ci ñoom bu ngeen bokkee tabbi àjjana kooku moo lay jëlaat ëllëg yowmal xiyaam kon rafet jikko lu am solo te alxabru yakulul laxmu wa soxmu wala yakulul iman bàmmeel day lekk suux di di lekk der di lekk yàpp doomu aadama ba mu jeex waaye imaanu doomu aadama bàmmeel du ko lekk te nit ki buy gane àdduna day am ñetti jëf yu ñëw fasanteeg moom kóllëre njaboot jikko ju rafet alal bu demee ba toll ci xar-xarle alal ji ñëw ne ko ah mankat kat mënumaa dem bàyyi ma ci coffre yi bu njaboot gi ñëwee séddoo ma njaboot gi ànd ak moom ba ci kuusu bàmmeel waxte ba mu xóot fab kanam gi des ko jëmale ko penk ngeganaayi la ko suuf def ko ni ko lislaam sartoon tey ci ñu jullit buñ war a denc buñ paree wan nan la gannaaw jikko ju rafet ak jëf ju rafet ak xol bu set moo naan la tey ñépp wan nañ la gannaaw foo guddee danaa fa guddee foo fanaan danaa fanaan moom la yàlla di wax ci alxuraan ni yawma laa yanfa'u maalun wala banuna illa man atallah bi xalbin salimin xalbin salim mooy xol bu set mooy xol bu rafet jamono yàqu na rajulun yajri wara almaal wara almaal walmaalu tarikahu wa rajulun yaxaafu risq yaqaafu ala risq wallahu raasiqahu wa rajulun yabni al qusuur wal xabru maskanahu doomu aadama yi ñu ngi daw di topp alal te alal da leen bàyyi moom la sëñ Tuubaa daan misaal ni teg doomu aadama teg dee ci digg bi doomu aadama nekk ci gannaaw di daq àdduna doomu aadama mi ngi ci digg bi adduna mi nga ca kanam dee mi ngi ci gannaaw suñ tubaa daan ko tomb di ko jàngal mag ñi doomu aadama bi day daw ci àdduna di ko topp mooy wa rajulun yajri wala wara almaal wal maalu taarikahu day topp ci gannaaw adduna di ko topp waaye mes lay mujj àddina waaye ki koy topp ci gannaaw yàgg-yàgg nuus la koy def doomu aadama yi di ragal ñàkk te alal lu mu gën a bari sa ëllëg sa xisaab sa diggante ak sa boroom di gën a jafe dem nañ nag ba toll foo xam ne ci àddina nit ki ñàkk la gën a ragal ci ci yàlla doomu aadama bi dem na ba nga xam ni ñàkk la gën a ragal ci yàlla te yàlla wallahu rasiqahu yàlla mooy wërsëgale mu ni wa rajulun yabni alxusuur wal xabru maskanahu mu ngi tabax ay pale di tabax ay kër yu rafet te ci biir suuf lay mujj fii mooy dëkkuwaay te mbokk yi bu leen naagu bu leen xalaat saa taxawagul de ñi saa taxaw ci moom mooy ñi faatu waaye bis penc ci balaa yàlla am ci jaam bi soxla ñëpp faatu ba jax takk ba kenn dootul deset ci kaw suuf yàlla doo ko seet suñuy mbir doo ko càmbar doo ko xool àdduna nag toll na foo xam ni alal ji Seydina Abdourahmane ibn Awf mi ngi bokk ci al asratul mubashara bil janna fukk ñi nga xam ni balaa kenn dugg àjjana ñoo ñoo fay njëkk dugg al asratul mubashara bil janna moom Seydina Abdurahman ibn Awf dafa bari woon alal lool yonente bi ne raaytu Abdurahman ibn Awf yadxulu jannata abwan gis naa ko mu raam di dugg àjjana ñëpp posé question moom xam-xam yi daje ci ni alal ji moo bari ñuy wax ni alal ju bari ji moo waral duggam àjjana diis yàlla nag li wax du deñ dërëm bu nit am ak foo ko jële ak noo ko sàkkoo sunu borom dana ko regle pièce par pièce moom la yàlla di wax ñoom kulluhum atihi yawmal xiyaamati fardan képp kenn ci yéen ku ne danaa ko régler danaa wéet ak moom ba mu defe ni moom rek laa bindoo alaaji ndaama mii nag doon na sàkku àdduna ngir mën a dundal Touba Fall mu xeex ngir def fi juma def fi jàngukaay def fi poste de santé def fi lépp alal bu ko nit ki wut loolu moo war a tax nga wut ko bari waa na ñoo xam ne ñu ngi leen di mbugal ci yomal xiyam te dara waralu ko ludul bàyyi fi alal seen njaboot di ko foye di ko caaxaane ndax luñ ca def sunu borom yow la koy gàcc te ñoom ñi dem fanu nekk dañ leen di indil jëfi seenu njaboot dara lu ko ci ump amul ki nga xam ni yàlla dalaa jox alal te góor góor lu wëcc dimbali woo ci woy ñàkk ñi taxaw woo ci jaam yàlla yi yàlla yomal xiyaam dana jot mu ñëw ci benn jaam ni ko yow ñëwoon naa ci yow soxla lu tax fajaloo ma sama soxla mu ne ko yaa rasulullah mu ne ko yow sama borom noo ñëwee ci man mu ne ko déedéet sama jaam ba ñëwoon ci yow amoon soxla tàllal lu loxoom fajo woon ajoom te man xadaa xaajata muslimin xadallaahu xaajatahu yowmal xiyaama ku faj aajo jullit yàlla faj sa aajo dem na kon ni ngay jàngate mooy dem na ba ci wér sax ak gudd fan boo ko bëggee alal ji la yàlla jox de ko joxe bi ci dimbali nit ñi yooyu jikko yoo xam ni alaaji ndaama ci loolu la nekkoon ñit ku tabe la woon njabootam gii <coughs> seen lëpp ci silence la waaye kenn dàqu leen def lu baax seen xel di daw def oto mhm. wallaay ñoom seen lépp silence la. waaye def lu baax ak jëf lu baax kenn dàqu leen. kon mu ngi bëgg a guddi ma daanee la foofu kàddu gi di bég di kontaan di leen wax ni. Moodu yow ak sa sa mag ju baax jii yëf yi nii rek la alaaji ndaama li ko war def na ko waaye yéen li war fii fi naan mujjewoo bàtt bu mu réer ñun ñi fi teew ñëpp wax dëgg yàlla nag bëgg nañu alaaji ndaama lool suñu waajur la suñu xaj suñu kilifa la waaye nag bu ngeen doxul woon ñu ne duñ mën a dox waa dëgg yàlla yéen a dox ñu dox ba tax fu ngeen nekk ak lu ngeen nekk ñu ànd koo yéen ba mu tàkk réew mii di Sénégal liggéey ngeen fi ba am ci jë ba am fi wàccuwaay woo xam ne ñëpp a leen nawloo ñëpp a leen fonk ñëpp a leen respecté ndax nangu liggéey ak jàpp seen jàmbur bokk ci kilifa yi nga xam ni seeni ojo seeni image seeni message mi ngi ci loxo yi mi ngi ci portable gaa yi damay wax ni portable yi ay bomba ngi ci ci fooye sa bopp ak ñàkk jaar fa nga war mën a fa nga war a jaar ba juum ba déraper bu def dugg ci loo xam ne xamoo ko ñu fab la nag di la paasante nga xam da ngay toog ak nit ñi sax mu lay xool ngeen di waxtaan ndekete yow mi ngi ak say audio wala mi ngi ak say vidéo yéen nag fa loolu dalu leen yéen seen lépp lu baax rek ngeen bëgg tubaa Fall kër yi gën a baax yi ngeen gën a bëgg mooy Touba Fall kon yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla taxaw jataay bi sunu xool sedd na ci kontaan nañ ci sëñ Baara Gaye seen naa la yow nit ku baax nga yow Baara yow nit ku baax nga la ngay def yow ñi yéen a bokk ci ko moo tax nga ñëw fi macha allah bu ala ala alaaji ndaama ku bëgg a dem non waaw alaaji ndaama ku bëgg a dem da ko def référence ku bëgg a dem te jël ko mu doon sa référence foo bëgg àgg da fa àgg da nga amuk jub da am ragal yàlla da am nangoo jaamu yàlla da am bëgg lu baax da am bëgg arxuraan ba pare da nga nangoo liggéey te as gor nag mu bëggee ajana day nangoo jaamu yàlla. nee na Baye Ndama nag moom dafa nekkoon baayam. lim daan waxtaan ak moom dan ko fekkee. lim daan waxtaan ak moom dan du ko fekkee. Moodu du ko fekkee. fu ko rombee comme Baye Cheikh Dieng mii. moom Baye Cheikh waajuram la tamit ndax ami ko ñaani woon ndax ami ñoom ñii ñoo ko ñaani woon waaye rëccuwuñ luñ ko ñaan see woon dañuy ñaan suñu borom loolu mu yokk ko muy lu baax li Moodu mais euh, nee na li ma wax moom la doon wax rakkam bii mu àndal jàng na am na xam-xam jàng na am na xam-xam moom mii xam na ci dara Serigne Bass mee xam na ci dara ne ne nee na bi ñu tàmbalee ñëw fii keroog bi mu fi njëkkee ñëw lu bari def koo yéem dëkkub cosaan bu mel nii nga def ko nii kenn ku ne li préfet wax léegi réew mooy defar am réew ndax réew kenn ku ne bu fonkee cosaanam bu ko defee day nekk lawtan lawtaan bi nag mën naa àgg ba réew mépp daj ci la jóge dëkku ba maamam ba sëñ Touba nekkoon sëriñ Modou Baara gane fa àdduna sëriñ Baara nekkoon fa muy maami sëriñ Bas mii bëgg naa mu déplacé wu ñëw yenn fa wala mu fanaan fa lu mat 3000 mètres carrés lu mel nii lan fa def poste de santé ba ñoo ngi koy tàmbali taliba tàmbali nan ko loolu barkeb sa maam la Serigne tubaa dafa gore wax na ko keroog ci kanamu ñoom Mbay Saar Serigne Seck Ablaye Dia Pape Fall Serigne Mountakha dafa yónnee di leen may ay basin di leen gërëm ngir le bâtiment bee ñu tabax ci université ba mu yónni Serigne Amadou Badiou mu ni Serigne Ahmadou Badiou man de xam naa la. ndax Sorbonne nga jaar xam-xam manqué woo ko timorankewul ci yow ba ba nangoo jël lépp jënde ko ak taalibe ndax Serigne Touba boo demee ni Serigne Mourtala Serigne Mountakha dañ koo delloo li mu moom ndax kenn ku ne amul ku ci sag njàmbaar may li nga am amul ku ci sam xel may li nga am am ku amul kenn ku ci sag ragal yàlla may li nga am li ñu yor lépp dañ leen koo dénk barkeb maam ya leen liggéeyaloon Serigne Touba loolu moo am fii buñ dee ay gor nag delloo ko ci ndabul Serigne Touba ku def lu baax mooy def lu baax dimbalente bañ a beew yàlla na nu yàlla boole defal jàmm sarak yi li nu wax ak ñi nga àndal ñëpp ñi di mbàkke mbàkke sëriñ Jili wax na lu daw yaramam waaye sëriñ Bas lépp lu la la waay defal dalaa delloo njukkal te matalewu ko woyof nga laa biir nga baax nga musta gis lu dul defal nga koy def tànki defar yooyu nag yàlla na ko yàlla saxal bàyyi seex jeng yàlla na yàlla guddal safan bàyyi ndaama fa mu nekk gën ko fii mu jóge tere rafet nañ ci njort li nga wax ci diggante Dan ak Modou nag ak seen jarbaat bii di Serigne Bass fami bu ne waroon na koo jàng ndax moom du gis moodu di wax ak Dan di ko xool te li muy wax dafa yàgg ndax xamante bi ëpp na fanweeri at yàlla na leen yàlla sàmm sëriñ bas kontaan na trop Serigne Baara Gueye Sànnoosi nee na da ñaan ci sa ndigal ñu am gan Chérif mu dëkk ak moom ca Kébémer mu xam ko yow Serigne nga xam ko nga xam gëddaam ca Kébémer nga xam gëddaam ca Kébémer ca gi nga jóge mu ñëw mu ngir yàlla ak guddi gii ñu wax ni soxna Awa Ndar moom la am lanteel wolore ba ñëw fi mu bëggoon mbooloo mi yëpp ñu génne addiye yi shérif ngir maamam yonent bi dajale ko jox ko ko nee na moom moo joxali addee yonente bi sallallahu alayhi wa ñu dajale ko jox ko Chérif jërëjëf Gaye yow yow mënoo mel nenn nu dul nii ndax Cheikh Mouhamadou Lamine Baara lañ la lan la duppee nga bëgg lu baax nekk jàmbaar nekk jàmbaar dëkk sànnoo si Kébémer yéen bokk dëkk sànnoo si Kébémer bokk dëkk mbake Bawol. la ngay def ca Mbacke yow ak yow Pape la ngay def ca Mbacke yow ak Pape Fall ami na ñu ko fay def. na ñu ko fay def. kon yéen. ay référence ngeen. kon kon leen yàlla sàmm yàlla jàppale leen. sa teewaay fii. sa nañ ci lool. at yu bari. ñoo fiy daje. lii nga wax ci Moodu ak Dan. lii alaaji ndaama baax na lool. waaye ñoom yàquñu liggéeyub alaaji ndaama. waaye ñoom yàquñu liggéeyub alaaji ndaama. ci li mënuñu liggéeyub ci li mënuñu liggéeyub alaaji ndaama. ndax dëkk bi ni mu ñore woon alaaji ndaama. ndax dëkk bi ni mu ñore woon alaaji ndaama. fi àdduna toll. fi àdduna toll. ñu baree bari. ñu baree bari. seen i dëkk raaf na. seen i dëkk. dëkk raaf na. dëkk raaf na. ñu toxu Touba. ñu toxu feneen. ndax ñàkk dundal dëkk ba waaye ñoom ñii waaye ñoom ñii fa tabaarakallaa ñu ngi koy dundal kon muhammadan jërëjëf sëriñ xaadim bég nañ lool seen maam sëriñ Masamba seen maam sëriñ ma Masamba wa amal jidaaru fa kaana li xulaamayni يتيمين يتيمين وكان في المدينة وكان في المدينة وكان في المدينة تحته وكان في المدينة تحته كنز ñëw waaye dafa bëgg alxuraan waaye dafa bëgg alxuraan ñu koy jàng ku ko dul jàng ku ko dul jàng boo koy tari boo ko gàkk gàkk neexalul kenn nun nag. yàlla dimbali nañ ci loolu. yàlla dimbali nañ ci loolu. ndamu wun ko. ndamu wun ko. bàkkoo wun ko. bàkkoo wun ko. waaye dañ cee sonn. waaye dañ cee sonn. sunu tànk yi sunu tànk yi li tax ñuy soli kawas. li tax ñuy soli kawas. secret bi lay wax. secret bi lay wax. mooy lëgëti jéng. mooy lëgëti jéng. ngir nga mokkal ngir nga mokkal ko. mokkal ko ba pare nag. mokkal ko ba pare nag. sàggan ba fëtt ko. sàggan ba fëtt ko. moom la yàlla di wax ni. moom la yàlla di wax ni. wa man naarada. wa man naarada. an zikri rabbihi an zikrihi. an zikri rabbihi an zikrihi. fa inna lahu. fa inna lahu. maayisatan. maayisatan. dankan. dankan. wa naxsuruhu. wa xiyaamati. yawmal yàlla. yàlla. ñi mokkal alxuraan. ñi mokkal alxuraan. lay waxal. lay waxal. mu ni leen. bu ne li ma xasarta nii ahma bu ne leen li ma xasarta nii ahma waxaddu kuntu basira waxaddu kuntu basira mu ni ko mu ni ko kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika yawma loolu moom sëñ bi bari dama leen a joxoon dama leen a joxoon alxuraan dama leen a joxoon alxuraan dama leen a joxoon alxuraan muy samay kéemtaan. muy samay kéemtaan. ngeen mokkaloon ko. ngeen mokkaloon ko. fàtte ko fàtte ko. moo tax bi ngeen dekkee. moo tax bi ngeen dekkee. ba ngeen di faatu. ba ngeen di faatu. da ngeen doon gis. da ngeen doon gis. waaye bi ngeen dekkee. waaye bi ngeen dekkee. gumba gumba. lu tax ñu ne ko lu tax loolu. ñu ne ko lu tax loolu. mu ni dama leen a jox alxuraan ngeen sàggane ko. mu ni dama leen a jox alxuraan ngeen sàggane ko. ngeen mokkal ko. ngeen mokkal ko. ba sàggan ba sàggan. ba fëtt ko ba fëtt ko. kuy njabootu Serigne Touba. képp kuy njabootu Serigne Touba. war nga cee góorgóorlu war nga cee góorgóorlu. gis nga yii gaa yi def. gis nga yii gaa yi def. ñu lay dóor di la nax. ñu lay dóor di la nax. naan la wii tur yàlla la. nga naan la yàlla la. da lay àggale. da àggale. turu yàlla wuy àggale. tur yàlla wuy àggale. kenn du ko joxe ci noonu. kenn du ko joxe ci noonu. la nit di daj ba jot ko. la nit di jot daj ba jot ko. caaxaan mayewu. caaxaan mayewu ko. waaye boo jàppee ci alxuraan. waaye boo jàppee ci alxuraan. am yàlla am yàlla. man araadal xurba min mawlaahu. man araadal xurba min mawlaahu. fal yaqrayin. fal yaqrayin. xuraana. xuraana. laayan saaw boo saxee ci jàng alxuraan. boo saxee ci jàng alxuraan. danga nga dem a dem. da dem a dem. ba yàlla ubbil la léppam. ba yàlla ubbil la léppam. kiiraay dootul dox sa digganteeg moom. kiiraay dootul dox sa digganteeg sa borom. loo bëgg xam xam ko. loo bëgg a xam xam ko. aajo joo bëgg faj faj ko. aajo joo bëgg a faj faj ko. kon yaa kon yaa xayti nañ ci góor te Serigne Touba te Serigne Touba alxuraan mooy léppam alxuraan mooy léppam te kii te kii boroom guddi gii borom guddi gii gu màgg gii gu màgg gii di koo xam ni di koo xam ni mooy lépp mooy lépp njanaaw yi njanaaw yi ci barkeem la ñuy naawe ci barkeem la ñuy naawe géej gi géej gi duus yi yëngatu duus yi yëngatu ci barkeem la ñuy yëngatoo ci barkeem la ñuy yëngatoo biddiw yi ci barkeem la ñuy doxe ci barkeem la ñuy doxe weer wii jant bi jant bi déplacement déplacement lépp ci barkeem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaana lii wa kuntu kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu lahu walillahi bihi sakantu bihi sakantu rafihi kitaabullahi wal mustafa al nabi Modou yow Modou microbe bi contaminé waat Abdoulaye dafa am alxuraan mooy léppi bi mooy léppi sëriñ bi Serigne Touba. sëriñ Touba. alxuraan alxuraan. mooy wettalam mooy wettalam. nee na ba muy dem ci géej gi. nee na ba muy dem ci géej gi. tukkeem boobu. tukkeem boobu li tax mu dellu si. li tax mu dellu si alxuraan la àndal. alxuraan la àndal mooy wettalam ak Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa kon nañ gën a góorgóorlu ñun ci alxuraan. kon nañ gën a góorgóorlu ñun ci alxuraan. di ko jàng. di ko jàng. di ko nafar. di ko nafar. te mbir boo demoon ba fëttu ko. te mbir boo demoon ba fëttu ko. jàngal boo ko saxoo diir bu gàtt diir bu gàtt mu ñëwaat mu ñëwaat. kon nañ ci góorgóorlu kon nañ ci góorgóorlu. aaya bi ma doon wax. aaya bi mu doon wax. ci Seyduna yonent yàlla Moussa. ci yonent yàlla Moussa. ak Seyduna Xadir. ak Seyduna Xadir. gaalu xéewal googu. gaalu xéewal googu. nga xam ni nga xam ni gone yooyu gone yooyu seen baay seen baay dencaloon na leen ko dencal na dencaloon na leen ko mu fassiruuna yi dañoo wax ni mu fassiru mu mu fassiruuna yi mu fassiruuna yi dañoo wax ni dañoo wax ni xewal googu gone yooyu amoon xéwal googu gone yooyu amoon ci seen barkeb maam lañ ko amee ci seen barkeb maam lañ ko amee ñii nii ñii nii seen juróom-ñaari maam seen juróom-ñaari maam borom xam-xam yenn yi. borom xam-xam yenn yi. arrière nañ lu gën a sori lool. arrière nañ lu gën a sori lool. nee na ñeent fukki maam. nee na ñeent fukki maam ca kanam. ci ginnaaw ci ginnaaw. moo tax ñu am xéwal moo tax ñu am xéwal googu. sëriñ Massamba. sëriñ Massamba. sëriñ Abdou Baaxe. kon yéen. kon yéen. lu ngeen bëgg. lu ngeen bëgg. te amu leen ko te amu leen ko. ci yéen la ndax lépp defal nañ leen ko loolu mooy kaddu yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu muhammadan sant na leen gërëm na leen na moodu sant na leen gërëm na leen abdoulaye sant na leen gërëm na leen fi muy daaneele la Gana Messere Mokhtar dugg si. la Gana Messere Mokhtar dugg si. di sunu xarit di sunu rakk di sunu rakk. Basiirou Basiirou. na nga gën a góorgóorlu gën a góorgóorlu. Modou Mamoun mii ngeen di wax nag. yàlla daa dogal muy sama mbokk yàlla boole ñu yàgg na man mii di wax riiru rekk riir mi andi ma dama ànd ak lii riir ndax ba ma koy fekk fa Sandaga kantin bi mu yor 2 mètres la ñu ànd lépp nee na ma cantine boobu di 2 mètres Lamine Gueye ko ko mayoon ñu ànd lépp ba mu tëgg programme arène sénégalaise tudde ko Bassirou Diagne Marème Diop microcentral ba Ablaye Naar Samb moo ko yoroon mu invité ma ci sama mbu yi woyof woyof après loolu la fi départ wan dem kongo ñu gëj a gise ba mu ami at nu tase bis ci boori sànd gi ma xanaa yëgoo woon ni ñëw naa ma ni ko déedéet mu ne am naa kër Patte d'Oie mi ngi jàkkaarloo kër sëñ Modou Bousso Dieng am naa broderi fii boo jaaree ci machino wuute l'indépendance boo fi joxee carte bi deñ la ko deñ ma la won ba ma fa jëkkee ñëw mooma dan mii laa fekk mënul tuuti parce que Modou Mamoun li mu bëggoon te daa ma ko wax yàlla da ko ko may ndax lii dañoo xëy ñu def ko ba nopp nu xëy di ndékki mu ni ma am na sax ñu ma doon wax ni dañoo bëgg may jàpp beneen bis pour gàmmug tubaafal Fall Mbuxeex waaye sëñ Mat Jóob mu ne mu ne ma loolu moom duma ko jëkkey def xam nga bis bu ma koy bàyyi bi nga xëy bu ma fi nekkee muy dox bu ma fi jógee muy dox ndax ñi ma koy wax bu ma ko noppee man dootuma ko man dootuñu fi ñëw kon ci bi nga xëy bu ma fi nekkee muy dox bu ma fi jógee muy dox ci boobu laa koy ba man ko yàlla na la ci yàlla jàppale dëkk bii bi mu fiy sémb li mu fiy sémb ma di leen wax ni 17 parcelles la fi jëkka na def ñu niile ko dégg nga maam 150 parcelles yi jëkk fii ci ñi ko wote laa bokk kon xam naa fi dara Cheikh Aram ñoom ñu ngi may dégg Cheikh Touba ñoom ñu ngi may dégg Ali Mbaye ngi may dégg